dal leen ak jàmm ci xibaar yi yéen kaay yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo yi observateur du ñu xamal ne Khalifa Babacar Sall mi nga xam ne nag moo jiite woon maire bu Dakar bi jamono ji moom Khalifa kay ñàkk na waaw yéen kaay bi dañu xamal ne gannaaw nag ñu xamee ne njiitu réew mi président Macky Sall dafa jël ab décret ngir ñu génn Khalifa Ababacar Sall mi nga xam ne nag moo jiite woon maire bu Dakar bi ñoom nag ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak Khalifa Babacar Sall jàpp ne ni nga xam ne daal noonu lañ ko yëlee foofee jaarul yoon yéen kaay bi dañu xamal ne gannaaw kalaami goo xam ne daal amaloon nañ ko ca Cour suprême boobaak léegi dogal bi nga xam ne daal Cour suprême génn na ko dafay xam ne na maanaam daal Khalifa Babacar Sall dogal bi nga xam ne nag jël nañ ko amul lenn loo xam ne daal jaar ci yoon waaw maanaam daal anam yii nga xam ne daal ci ñu jëlee décret ba maanaam daal ngir mooy bëgg-bëggam bi nga xam ne nag moom la amaloon Sud Quotidien dañu xamal ne man kay maa leen di nettali mbir yaag na mu demee démb kay audience bi yëngutu moo amoon fi nga xam ne nag mooy ci mbir waaw xuloo bu tàng jër kay yi moo amoon ci diggante ki nga xam ne nag moo di maître Moussa Félix Sarr ak ki nga xam ne nag moo di maître Ousseynou Fall waaw gannaaw nag kàddu yi nga xam ne nag maître yëkkati na ko maître Moussa Félix Sow doon xam ne nag ñenn ñoo xam ne daal seen ak comportement dañu ko war a xoolaat waaye maa ngi jégg lu baax ca la noonu ca la ko ki nga xam ne ne moo di maître Ousseynou Fall daal di koy tontu waaw daal di koy xamal ne xamal sa bopp waaye bu fekkee da ngay wax nga xam sa bopp laa wax waaye nag ñeneen ñi nga xam ne daal nekk ñu bul xam na nga xam ne daal ñoom lañu nekkee booy jéggu la nga yemal ko sa bopp lu ñu xamal mbir ma kay tàng jiir la defoon ci diggante ñi nga xam ne nag ñoo di ñaari avocat yi waaye ca noonu sax boobale audience ñu daal di koy aaj ab diir doog di ko aaj yéenekaay bi dañu xamal ne ak lu ma di xew démb daal firiya daal tàngoon na ci ni nga xam ne nag lépp loo xam ne nag jëm na ne xam ne bokk na nga a ne waa Transparency International def nañ ko ak Afrobaromètre dañu xam ne daal maanaam daal rapport booba ñu ngi ko tëkk ci ñaari at yoo xam ne def nañu càmbar ñu daal di koy amal nag ci fanweeri réew ak juróom dañoo jàpp ne réewum Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne maanaam daal guerre ga fi la gën a wulee ñaay yaatu na lool ci wàllu yoon ci wàllu assemblée nationale bi sax am na fa xam léegi ko yéen kaay du ñu xamal ne mbir kay yemul foofa ndax ci nga xam ne nag moo mooy topp ci liste bi nga xam ne daal gannaaw ba ñu ko déggee ndax Aly Ngouille danañ ko mën a woo wala déet di xew Abdoul Mbaye de di Abdoul Mbaye dafa war a régler laax moom Abdoul Mbaye Gueye Aïda Gueye ne Abdoul Mbaye moom daal gannaaw bi mu ñàkkee li mu yoroon moom Abdoul Mbaye daal dafa mel ni ko am dépression maanaam daal mu mel ni ko xaw dese ay dafay ne Abdoul Mbaye jamono ji la ko moo de mu toog te xoolaat bopp ñu xool lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu tàggat yaram yéenekaay bi dañu xamal ne Sénégal jamono ji ma nga ca demi-finale na xam nañ match bi Sénégal ci kan la war a tase yéenekaay bi dañu xamal ne xam ne nag ñoo di Tunisie Vox Populi dañu xamal ne match la boo xam ne du yomb ndax diggante Sénégal ak Tunisie yàgg naa metti match la boo xam ne yàgg naa tàng ay yoon yu bëri yoo xam ne daal tase nañ Sénégal ak Tunisie Tunisie dóor na lu toll ci juróom-ñaari yoon réewum bi nga xam ne nag moom ñaari ñaari bal ci dara yéenekaay bi duñu xamal ne ak lu mën di xew ñi nga xam ne daal ñooy nekkee ci tàggat yaram maanaam daal jigéen ñi nga xam ne daal ñooy yëngu ci tàggat yaram da xam ne daal dañ a yebal fële xam ne nag moo xew foofa yéenekaay bi duñu xamal ne ñoom kay jamono ji fu ko góor ña teg rek fa ko teg ay jàmbaar dëgg lañ